mbokki téléspectateur Teranga Sénégal TV ñi ngi fii tey si Thiès si hippodrome Ndiaw Macodou Diop li nga xam ne tey mooy deuxième journée course hippique bi am fii si Thiès xam nga na hippodrome bi nag dafa am ñaari facette bu fekkente ne nawetaan dafa door dañ naan champ de course xam ne équipe nañ football ci nga xam ne mooy wàllu bu ñu jigee nag ba nga xam saison bi tijji li ñuy wax mooy hippodrome Ndiaw Macodou def deuxième journée bi nga xam ne moo am saison 2023 bi bu ñu duggee si biir nag ñu xool tey lan moo xew fi tey si biir hippodrome Ndiaw Macodou fii si biir Thiès ak seen télévision Teranga Sénégal asalaamaaleykum waaw ñu ngi ci suñu tonton boo xam ne vraiment moom dañ ko xàmmee li xam moom course équipe bi tey ñu ngi fii ci Ndiaw ba Koddu Ibrahima Ndiaw ba Koddu ci deuxième journée xam moom moom neex na trop ndax lii rek la ñuy ñaan fekkee ne ñëpp ànd nañ doon benn course day am mais fekkee ànd course moom am parce que am na fas xam ne fu ñu lay daw dawati du jar ne ñuy seetaani hmm. kon nañu ñaan yàlla ñu jubóo rek parce que man dimanche ñëw moon maa ngi woon ñàkk waaw si jubóo bi ngay wax sa lañ dem parce que course moom dañ cee gis loo xam ne amu ci woon daanañ ko ko gis si lamb mais comment dañ koo gis si course ba ko waral a am xëy dafa am loo xam ne dafa newoon ci biir nit ñi xamuñu ko dem xam ko neexu leen ñuy waxee dañoo bëgg course jëm kanam course avancé loolu xam ne ku jóg ak fii ba Louga ñëw dawal si am quatrième boo fayee sa oto te soo koy parfumé il faut nga jox leen seen sentence fay sa engagement lan ngay dese nit ñi dañoo bëgg boo fas dawee ba raw am dara deuxième am dara troisième am dara quatrième am dara ku nekk mën am dara loolu nit ñi bëgg léegi lan nga jàpp ni kon coow li daal dëgg dëgg moo ko waral ba nga xam ne taal nañ li nga xam ne mooy box yi taal nañ mooy sa loo xam ne. moom parce man taal bi dama koo dégg ah fekk ma parce taal bi man la ma fekk ñàkk dara teg waaw man maa ngi woon comme mooy baaw hmm. tey comme yow ku nitu nga ku ñu xam course nga ku ñu xam sport nga tey lan ngay jox conseil yi nga xam ne vraiment ñu ngi bëgg a dugg ci course bëgg sa def loo xam moom bu amee bu neexee yàlla mais course la neex mais nag bu jubóo ah, ah. Hmm. la ñuy wax course xaalis ñëpp am ci dara hmm. mais xam nga yor lu mat cinquante soo di leen dundal boo rawee ñaari premier mënul am dara boo joxee santé sax li fas yi lekk da ngay perte maa ngay dund mais loolu neexul waxtaan wax dëgg la nii kan dañuy wax dañoo dee sax mais deewuñu borom fas yi ñoo dee mm-hmm. hmm? yow bu ñu wax tey ban écurie nga àndal man maa ngi lamb parce que Omar Bawa sama jarbaat la d'accord voilà tey da nga indi fas fii tey waaw maa ngi ay dalinkoor du ma yéen ak consoré damay essayé nag sa ah, maa ngi sogo ñu waaw waaw kon jiw ko dawa ko wala daw nga pare <laughs> non guma. dawa ko waaw am nga yaakaar waaw am naa yaakaar maa ngi essayé rek loolu am na solo <laughs> ñu ngi lay jëfit waaw kontaan naa trop ah, ah. aja ñi ngi kenn koo xam ne nag ñoom ñooy organisateurs yi mhm. tey bu ñu fi nekk woon tey na ni daal vraiment course course yi mën mhm. mhm. organiser mbir yi di def loo xam ne lépp gis course yéen ñu koy organiser mosuñu ko see gis waaw daana gis si mais course daal ñu gis journée première journée bi loo xam ne Thiès yëpp ñu ngi koy naqaru yéen ñu ngi ko gisee en tant que organisateur asalaamaaleykum mbokk Thiès maa ngi nuyu ñëpp seen tur seen leen gërëm di leen li nga wax dëgg la gars yi dañoo meroon rek moo tax ñu defoon loolu rek mais léegi ñoom ñëpp jubóo nañu vraiment nañu ñëw bokk ndey bokk baay ñu bokk ñëpp ñu bokk liggéey parce que bokk yi bokk yi ñu taal ak ak quatre plat bi ñu taal Cheikh Niang moomu ko moomul box yi moomu dara Cheikh Niang bu dee dem da ko fiy bàyyi ñu ñu ñoo fi nekk yaa ngi dabaa ñu ñoo ñu ñooy organisé yaa ngi dabaa ñëpp ñu ñoo ko bokk Euh, course bi ñun ñoom ñun ñoo bokk course bi parce que yaa débat nag ku nekk euh, bés xol yi rek ñëwaat bokkaat liggéey rek bokk day bokk bàyyi rek liggéeyaat quoi vraiment course bi jëm kanam quoi vraiment mi ngi jëm kanam mais dañuy ñaan yàlla mu gën a mu gën a neex waaw mu gën a neex daal mm-hmm. waaw xam nga à part journée bi nga xam ne moom mooy journée bii passé waaw course li ñu fi daan gis mooy public bi si ñëw lépp mm-hmm. ay jeunes kese lay doon mm-hmm. te ñooy ànd kafree gëna leen radi kafree ku sa morom daanu keneen ki encourage ñu ànd dem loolu lan ma ko indi waaw xam nga course yenn saa affiche mooy affiche moom moo tax nit ñi di gën a bari bu affiche amee dafa am des fois dañ am tëkkale bu amee tëkkale yaa ngi dañ ñëpp dañuy ñëw mais yenn saa am na fas yi nga xam ne bu fekkee ne ñëwuñu gars yi duñu sawar a ñëw quoi loolu moo tax boom bii passé nii malgré la neex na sax mais tey tey tey tey tey moo ko gën a moo ko gën a neex mais xam naa ne comme course yaa ngi dox rek incha allah dina gën a neex daal yéen organisateurs yéen jafe-jafe ngeen di gën a am yéen ñuy organiser mbir yi nga xam ne yéen ay jor bunt yi xale yi war a génn war a jàll yan jafe-jafe ngeen encore teel lu bare bare bon jafe-jafe yi ñuy am yi daal moom mooy que ne xale yi nga xam ne amuñu billet

ak Sénégal ñëpp a ngi seetaan léegi course dafa am na passion la bi nga xam ne ñëpp dañ koo bëgg léegi quoi di ñaan yàlla rek yàlla dàqal ñu seytaane ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ñu war jàpp ñànk si affaire bi rek liggéey ko Sénégal jëm kanam daal jërëjëf waaw jërëjëf waaw jërëjëf tâche ko indi course soo nanguwul jàng doo dem course. surtout man non j'insiste sur ça. surtout parce que il me dem il me doit des résultats. Ah ah. donc bu bu indee résultats yi. Mhm. course bu tëggee dama indi. Mhm. bu indiwul résultat du ma ko indi ci course jamais. Mhm. xam na ko ci man. Ah donc man noonu lay doxee ak sama daal te maa ngi sàkku ñaan borom kër gu nekk. na nga téye sa njaboot. di ko yedd. di ko sensibiliser. parce que kenn matul. xale bu ndaw matul nit matul. donc nañ sensibiliser xale yu ndaw yi. yar seen doom ñu ñepp ñu bokk ndey bokk bay course nak fo ak reel la rek nit ñangi wal ci di ñew dëgg ku am fas ku amul fas ñepp nga ñew di sétan ci loolu dëgg waaw yalla jamm am rek amin amin ya rabbi nga bon man nak neexul ba neex am euh, non non sans sans sans dire sama doom ba ma lay wax waaw président CNG bi la ko tuddee Cheikh ñang kon ku wax Cheikh ñang wax écrit cuuj waaw waaw man ñom lay faral depuis des années waaw am naa non dawaguñu am nga yakarti fasitay top groupe B laa am ñaar ñett. naaru góor yi ma am ñaar. waaw waaw ñooñu ñoo ñoo ñoo laa indi. ci xam nga ñëpp daal nañu la jël macha allah macha allah fas moom macha allah jërëjëf ñu ngi ak Fallou Fallou bi ñu taxoon ñu gisee nag ak tuutiwaay bi yëpp mooy meilleur zone Thiès fàllu li ñu naan ADP association départementale presse sportive bi nga xam ne suñu doyen Matar moom moo ko jiite sargaloon nañ fàllu li nga xam ne moom mooy bëgg Demba Ndiaye fàllu ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi leen di fay ku si nekk sa tur si sa sant di santaat yàlla bu baax a baax. fàllu la moo la boole course. waaw course dañuy xale rek waaw ah, teel a bàyyi sunu jàng ah, dugg si course ngir teral sunu ñaar waajur man looloo ma dugal ba yàlla def mu xaw a ëpp quoi ba léegi mu ngi rawante sax mais ma ne ba roy si ba dugg si bi nga ci duggee amoo ci benn rëccu non ba ma si dikkee gannaaw yàlla moom aw ma si benn rëcc rëcc ndax tey gii nii mën naa loo xam ne amaana bu ma doon jàng wala ma nekk si beneen métier bu dul fas pour man uh, du ma ko am kon uh, di santaat yàlla bu baax a baax mais tay bi ngeen yor nii ni ngeen tuuti macha allah est ce am maîtrise si fas yi carrément bën koo kii du ngeen tam léeg-léeg fas yi gaañ leen wala dara waaw loolu soo gisee formation la ndax école la boo xam ne dañ fay jaar ba pare ñu ne doog a teg si kaw fas yi da ngay dem jàng formation ba ab tu ñu utal la licence assuré la nga commencé avoir course ban écrit nga bokk waaw man maa ngi bokk écurie Omar Bao. écurie boobu rek mos a nekk Omar Bao. non nekkoon naa écurie ci professeur Sakhir Thiam. en 2015 mais dama faa jógee 2016. 2016 ba léegi maa ngi écurie léegi. lan nga fa jógee léegi dañ laa comme ni joueur yi def transfert la wala comme ni dañ laa gis jënd la nga ñëw. wala na la demee waaw ba may nekk kër Thiam ba may doog a door dama raw ñaari première pourfe lu ma war saison bi uh-huh. ah si lan ma si laa defee transfert ñëw foofu hmm. signé contrat moo leen waral ah contrat ngeen ne am ak boo xam comme nga nekkee kii tey kee signé le contrat bu gën a baax nga bàyyi ko dem si kooku waaw su nekk am na xam ne dañuy xool seen intérêt am na ñoo xam ne contrat bu gën seer la ñuy xool am na ñoo xam ne fas mën a daw la ñuy xool doog a contrat mais contrat bi ki nga xam ne moo lay jël këram ngay si moom mais man suñu kër laa dëkk su neex damay xëy dem liggéey wàcc ñu bisi sunu kër li fas rek ngay liggéey dawal fas rek dawal fas rek laa liggéey aw ma beneen métier bu dul dawal fas am am naa métier mais instant dama ko arrêté suivre gën a suivre fas. waaw mais fas bi dafa mel ni kenn mënu koo boole leneen dafa mel ni temps bi yëpp da nga jël. non kenn mënu kaa boole leneen ndax day métier boo xam ne nii il nga am temps il faut doo am temps mhm. ah pour leneen simplement il faut nga bàyyi xel tout le temps si li yow métier fas nga nekk jàppee fas comme sa bopp. Mhm. tey da dawal si. waaw tey dawal si naa deux ans ni romb instant. ban fas nga war ban fas nga waroon. deux ans yi ah jël sunguf jël. ñaata nga jël dan ma raw si deux ans. da nga raw trois ans. ah da nga war a dawaat encore. waaw nga war a dawaat encore. ah da ngay dawaat te boobu daa nga si yaakaar. am naa ay jërëjëf waat coow li amoon loo si wax coow li amoon bee passé. ah coow li ñun moom léegi weesu naan fu ñuy ndax dem nañ France ñu bis kon am nañ lu bëri luñ fa jàngatee ah nekkatuñu ay mën na noo doon xale si jëmm nii mais si euh, xam kam-kam nekkatuñu si xale. war nga fa fas. waaw ba ñu demee tàggat nañ fay fas mais war. fas ya nga war ak yi moom mbaa bokk nañ non fas yi mënuñoo bokk ndax ay pur sang lan ak ay soixante de sang mënuñoo bokk. Mm-hmm. c'est impossible mënuñoo bokk ndax fas yooyu ay pur sang lan ñii ay soixante de sang lan. waaw kon demee tàggat nan fa yàlla def na lu gën ñu ñibbisiwaat kon am na luñ fa jàngatee loo xam ni course war nañ fee weesu loo xam ne dañ siy mer wala dañ siy xuloo wala ñuy xeex tey ñun zooke yëpp ñoo bokk fu ñu toog ñoo booy mayante xaalis ñooy defante lépp kon tout le temps rek fair play bi la kon nii bu ñu rangalee fas bu ne mën nga xam ban mooy fas xeet ba mu bokk waaw bu ñu rangalee fas bi nga xool bu si nekk xeet ba mu am na ay pur cent anglais ay pur cent ay français waaw bu yaayam nekkee français wala anglais mën nga koo xam. waaw bu yaayam nekkee français wala anglais nii surtout baayam. parce que baayam nga koy gën a mën a ràññee kasi yaayam. Mhm. waaw ndax baayam seen baay ñoom la ñuy jugee France di leen importer ñu fii. ah baayu anglais ak baayu almaañ du bokk. waaw non non. jërëjëf noonu dégg ngeen yuuxu yi xam naa ni ñàkkul ni ngi dem bu dul naari tamit di pur sang yi rek waa ñi ngeeg joxlo koo xam ne vraiment moom dootu ñu ko présenté si la ci ci xam ne mooy course li ñu ko njëkk a la waaw per course li ma booleeg moom dafa bari man daanaka bi ma doonee gone fas moo yàq sama lépp doon naa zooke di war équipe professeur Sakhir Thiam doon entraîneur ba nii ma waxee yow daan nga raw mba waaw yàlla def na nag dama daan placé rek nag ah. waaw musuma raw placé mooy lan leeral ko ñuy am euh, ay quatrième ak ay troisième waaw loolu moom yàgg naa daanoo jël naar mais tamit daanoo jël pay waaw mais bi ma traîné raw naa ah, traîné naa ay fas bari kër Sakhir Thiam ah, raw leen mm. waaw mais course yi père dafa toll foo xam ne nii jamono jii nii nii ku yoroon sa doom sax boo koo dugal ci course boo gisee course yi ni mu demee dootoo ko ci bëgg a dugal mhm. ndax course foofu noobul la mhm. man am naa ci teraanga bu ne yaa ngi dégg léegi am na leen loo xam nag buñ bëggee toog ci course gis mu nar a yàqu loolu noonu gars yi ñoo war a waxtaanaat seen biir xam nga ndax borom fas ak entraîneur ak jockey xam nga ak supporter mhm. daanaka ñëpp ñoo boo bëgg-bëgg gi bu ma sañoon nag gars yi dañuy xool nu mu gën a rafetee rek ñu koy defar noonu ndax ñun amuñu lu dul sport course mhm. ndax course forme noble la ku ci sol lu rafet mhm. yaa ngi dégg xeeñ bu neex dugg ci bu rafet ñëw mhm. bu doon foofu bu raacu la du la ci fekk ngir yàlla dañuy ñaan yàqati la ñuy borom fas yàqul benn entraîneur yàqul benn supporter yàqul mais am na ñuy yàq bokkuñu ñi yàq ñoo bokk ci course da leen di ñaan nag kat yooyu ñu jéem leen a seppi nank teg leen ne ñu jéem a xool nun defalee suñu course yi mhm. te ñu yokk xaalis bi ah. entraîneurs yi gis ki seen bopp mhm. joge yi gis ki seen bopp waaw course nag dafa mel ni borom fas ñooy gis seen bopp waaw dafa mel ni borom fas yi daal ñoom ñooy jël yëpp dafa mel ne làmb rek ñu ne mbër ma moom mooy jël lépp yóbbu course mhm. dafa mel ni ñiy dawal ak xam ne ñooy yar fas yeeg ñooy toppatoo dafa mel ni daal borom fas yi daal moo jël lépp yóbbu borom fas bi daanaka moom moo jël lépp yóbbu. mais boo xoolee borom fas yi bu dee jël lépp di yóbbu tamit moo jënd lépp. mais entraîneur père mooy yeewu 6 heures du matin di war. di yeewu 6 heures du matin di sang. Ah, la muy daj. Ah. moom zooke bi ñuy jox 1 million wala deux million sax. waaw yaa ngi dégg entraîneur bi. joxuñu ko. waaw te course toll na foo xam ne nii li ngay jox entraîneur li ngay jox sooge moom nga war a mën a jox entraîneur. waaw yaa ngi dégg ndax entraîneur mooy defar fas ba mu baax. ah entraîneur waaw dafa sonn. Mhm. entraîneur lu nekk la ñuy daj. Mhm. entraîneur tey jii toll na foo xam ni sooge fu mu amee kër entraîneur war naa am kër. ah sooge fu mu amee oto entraîneur war naa am oto. ndax état bi ne fas entraîneur moo ko ciy def. sooge ñëw dawal raw. am lu mu defaree këram. léegi bu demee ba entraîneur mënatu ko am tamit war nañoo xoolaat course yi ah kon dégg ngeen ko. loolu ne cadre entraîneur nañ see gis seen bopp ko waxee. kër yi tamit fekk ñoom entraîné wuñu fas bi ba nga xam ne nekk na en état vraiment bu ñëwee fii nag am raw gàddu ba si a am. Hmm. kon nag entraîneur aussi dañ leen war a déglu. waaye li xoosee deuxième yi fàtte nañ ko dafa mel ni course dëgg la dinañ ko fàtte. ndax ñoo bokk fomi borom fas ñoo bokk ndaay ak baay kenn ku nekk da ngay jariñ sa morom tey professeur Sakhri Thiam mën gis fas bu baax ci Omar Ba wala Kër Seeñang mhm. ñu koy jaay mu jënd ko raw ci yaa ngi dégg xamal am na yenn problème yoo xam ni moo doon milieu course ñoom bu ñu ko xasee ba romb rek mhm. romb nañ ko ah, ah. léegi ni ngeen koy gisee nii fi ñu a neex mais man am naa yaakaar man laa moom mhm. dootoo ci déggati benn coow dootoo déggati coow waaw man loolu moom Tay, andi andiwuma fas mais sama copain sama xarit di bari no dawal ci ay fas. moy ban écrit tey kon ko mais buñu bari baree tatas amna ko ci si waaw écrit bu nek bo bëgge écrit bu nek man amna fa ay nit. professeur mais amna ko faral tay écrit bi amul ñak ko bëgg mu raw. waaw man bu ma sañoon tey moom. ba fa ah. dëgg yalla ah. naar goor mom keur cheikh Saxir kiam la ñaanal ñu raw premier comme da yaa keur kër Saxir Caam. waaw ndax man luma am ci teranga ku ma xam ju fas. Mhm. keur Saxir nga ma xame mhm. bu raax tamit ma ko ñaanal tay yalla may ko premier bu seddu guy Aliou bu raax mhm. waaw ki ma gën dugal ci fass per mooy Ahmed Cissé yàlla daa def mu wàññeeku maa ngi koy ñaanal yàlla suuf ay ci kawam fu mu tëdd te dañ koy fàttali ko ci course ndax kooku dafa def ci fas loo xam ne nii mhm. bëri na ñoo xam ne tey jii nii yaa ngi dégg xam nañ leen ci course defuñu ko ah, barke Serigne Touba Mbacke ah. mais tey daal li may ñaan yàlla mooy naaru góor ah, ah. Sakhir Thiam raw waaw bien Aliou Bouraax raw loolu laa ñaan yàlla tey jërëjëf ku ci mel ni ne Arafat ku mel ni Tawfekh ndax Tawfekh Arafat boo leen xool région ndax Tall ñoom def nañu yëpp président yi waaye ki nga xam ne si nag mooy membre dafa def ñu gis pratiquement passé premier premier deuxième membre loolu moo tax fay topp ko xool te Mbalago bi ngi tudd président la ko sëñ yaa ñëw mu ne caméra bi président la ko sëñ yaa sëñ loolu dèjà Arafat dafa nekk Papa Diagne boo ko ci toog toog fu ngeen daanee woon laay ko Arafat kenn dootu ko fàtte ndax daaw def na sept participation en cinq victoires ak ñaari participation ak ñaari

maa ngi gis Arafat maa ngi gis Dikel bi waaye Maam Lo waaye Sungufu Njël ñoom ñëpp ànd nañ doon benn fas. mais Arafat na distance. Arafat joxe ñaar ba ñetti longueur sama waa ji Arafat ñaari longueur ñu ngi nii ci basket bi ñu ngi nii ci basket bi waaye ba tey Arafat moo nekk première position mais 1650 mètres la ñuy daw. 1650 daw Ousmane. yaa daw bari na daw bari na. léegi xombal bi. waaw ñu ngi nii ci 200 mètres bi di ñëw di romb box yi waaye Arafat moo jël waaye suivi yi Tawfekh Tawfekh bàyyiwu ko ñoom ñaar ànd nañ doom benn fas ñu nii di ñu romb te rawante bu ubbeeku nar a doon waaye en troisième position waaye maa gis maam loo ngi daw quatrième position waaye Arafat Tawfekh tey lañ nar a daw ba génn réew. Arafat rek Tawfekh ñu ngi ña ngay xeex est-ce que dinañ jeexalal bi waaw ñu ngi nii ci tournalu Sakir Thiam bi ànd nañ doon benn fas diggante Tawféex ak ak Arafat ñu ngi nii fañ rangee woon buggale nañ 1000 mètres 600 mètres moo leen des waaye dafa mel ne ki war Tawféex yolo mën na biir nooy Tawféex daw songo Arafat Tawfekh daw na songu Arafat ndeysaan maa ngi gis Saliou Fall daw da li ma jaaxal course bi ni muy yaatoo une minute vingt deux wër nañ benn tour ba kër parce que li ñuy daw bari na li ma jaaxal xanaa duñu daanu ni ñuy jegente xanaa duñu daanu déedéet ay sooke yu man sooke yoo xam ne dañoo jàng war jàng dawal ba mokkal ko ñoo war fas yi dañ ko da ngay def formation deux ans moo tax waaye Arafat génn na Arafat génn na Arafat génn na deux ans bii ko doon defee su génnee day day daw ba tekk si kenn du ko dab laa ilaaha illallah Arafat day ba xam day tekki sam gën. ñaata tour moo des ñaata des. Ah, moo leen des en arrivé bu ñu ñëwee bu ñu accès fii dañuy téye daanaka li leen des quatre cent mètres moo ci des bu ñu tourné ci deux cent bu ñu tourné fii deux cent mètres moo leen des en relevé mais ba tey Arafat moo jiitu suivi Tawfekh deuxième position waaye maam loo. mi nga Arafat Arafat ci deux cent bi ñu xool Ousmane Arafat Arafat Arafat Arafat day Arafat day jiitu Arafat jiitu. Arafat raw na Arafat bu Jibi Ndiaye raw na Arafat raw na Pape Ñing le doyen des jockeys moo ko war di Pape Ñing Arafat raw na Pape Ñing moo ko war le doyen des jockeys deuxième le Tawfekh troisième le numéro 15 et quatrième le numéro 10 et cinquième le numéro 5. laa ilaaha illallaah Ousmane dégg dem ci Saliou Fall Ousmane Arafat moo jël pee Arafat moo jël pee ndeysaan Ousmane waaw Arafat moo jiitu ah. non fii la koy jëlee. joge boo xam ne dafa mën a rawante. joge boo xam ne am na grand prix. Ah. joge boo xam ne lu nekk raw na ko fii muy Papa Ñing Papa Ñing la doomu Jolof bi. la ah. la doyen di joge su su waree Arafat raw ci war na cee raw. Ah. parce que joge la boo xamante ne kenn du nattable ak mën a rawanteem. waaye deuxième position fas yi nga xam ne mooy taw fee Omar Ba moo ko moom. ñu waajal ko ngir lamb faal gépp ànd ak moom mu ñëw am deuxième day day takk defarwaat. bu bu bu troisième saison bu ñëwee mu jéem a ñëw Jimi Ndiaye ngi baatee na xaalisam Arafat nii lay dawee Arafat nii lay dawee Arafat bu génnee bu génnee moom moom moom moom ba ni muy teg si fas du ko def waaye gis naa Jimi Ndiaye gis naa Jimi Ndiaye ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal waa tawfeex joo loo ko mën a ko lañ dem mais muñu mu muñu bàyyi fa tawfeex rawante boobu li mu nekkewul deux ans lañ di trois ans tey day gën a yokk tey daa jàpp ndax daa gën a daw dëgg la mais champion la dëgg la da gars yi dañ ne champion la dëgg la wala temps bi deux mille trois la ko def deux mille trois dëgg la ñu daw dimanche lañ ko def dëgg la temps bu rëy la liggéey la dëgg la yàlla yàlla def jàmm Wow, wow, wow. gis nañ la nga Wow, wow, wow. nga waaw waaw waaw loolu la parce que Wow. que fas wi dañ ko Wow. indi ko muy sunu doom tëkkale Wow. metti depuis daaw bu ñu Wow. ñu raw premier dañ cee sonn moo tax mu jibile noonu waaw Idrissa Wow. gis nañ jibile Wow, wow. saalu jibile na jibi lan ko mën a wax ànd ak waa Idri Maxtum waaw waajal kii di Arafat waaw waaw Arafat nan ñu indi mu def résultat. waaw ñu ngi di jaajëfal yéen ñëpp. merci jërëjëf. jaajëf kaa jël sama waa ji. moom kenn mënu la see génnee. course kenn mënu la see génnee bi tey Teranga Sénégal télé bu bees boo xam dafa ñëw ndeysaan c'est la première ñëw si course fekk la fi tey vraiment ñu kontaan trop sa teewaay fii lan nga ñuy wax tey Teranga Sénégal. waaye Teranga Sénégal dal leen jàmm. waaw. bien soyez soyez bienvenue fii ci course hippique. daal fa kàlla macha allah course hippique na. waaw asamaan la jëlu bu xam ne. kenn ku ne xajkat yi. waaw ñëw leen dara jàmm. jërëjëf ñu ànd ak yéen. ci course hippique. ci ni ngeen ko bëggee. ak ni ñu ko bëggee. Ah, ñu ànd doxale ko noonu ngir course jëm kanam. ndaxte Sénégal. waaw sport. wala lu mu mënti doon. Mm-hmm. presse moo koy jaay. waaw te course hippique presse bi ci nekk néew na. képp ku ci mën a ñëw rek ñëwal. ñëpp ci xat. waaw kenn bu ne mën ngaa béy sa waar. Mm-hmm. te tool bi des. tool bi kon ñoo leen gën bay seen ñu àndandoo ko jàppale leen ba liñ ci mel ngeen mel ko ci. ci looy waajur nag parce que wane yoon bu rafet. sa waajur wane yoon bu rafet. waaw kooku moom li lépp moom a. waaw lépp moom a moo ñu xaalal yoon wi. waaw ba tey yoon wi leer naa ni ba ah. mën a ñëw bay ah. ñu koy gërëm bu baax di ko ñaan yàlla. Ah. yàlla guddal fanam. yàlla kettanal ko. ba li mu yéene ci ñun lépp. yàlla àggaleel ko ko. jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu jërëjëf. ayca mbokk yi gis ngeen tey ni loon fii si seen hippodrome Ndiaw Macodou ak seen télévision Teranga Sénégal TV gis ngeen coow fi amoon ñëpp wax nañ ci gis ngeen tey course ndeysaan ñëpp xam nañ ni am na beneen public boo xam dafa ñëw fekk si ña xam mooy course course léegi nekkatul rek benn masse population bi nga xam ñoo ko bëgg léegi ñëpp ñoo ko bokk bëgg ñi di ko Louga ñi Thiès à travers le Sénégal fépp la ñuy jógee ñëw fii si Thiès pour fekkee li nga xam ni moom mooy course deuxième journée bi amoon saison 2023 kon nag la télévision Teranga Sénégal TV fii si Thiès ñu ngi leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen journée seen course épique fii si Ndiaw Macodou Diop merci beaucoup à la prochaine